24 point net l'information à sa juste valeur si si même Sunugal 24 point yi xarit ñuy taxirlu ci Sunugal 24 jaajëfal nañ leen ci tànneef bi ànd ak yéen jukki leen xibaar yi ci jotoru si Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur si si même Sunugal 24 point net dañ koy door rek langu politique gi ak kàddu yi nga xam ne moom la ancien premier ministre bi di Abdoul Mbaye daal di yëkkati jëmale ko ci jiitu réew mi ak li nga xam ne moo di mbiru gouvernance politique bi Abdoul Mbaye ma nga ñuy xamal ne lii di au conseil collectivité territoriale amu fi benn njariñ defu fi dindiw fi dara te kenn gisu ko mu def dindi ci jafe-jafe askan wi moom Abdoul Mbaye ma ngay laajte li nga xam ne moom la Macky Sall di doxeek njiitu réew meek Macky ma moomu xamoon ndax Macky Sall moomu la ba léegi wala déet ndax daal dafa mel ni dañu ko dugal ci bëri góob iwil daal di koy génnee Macky moomu xamoon mu engagé wu ngir taxawoon dimbali askan wi ci lépp loo xam ne jafe-jafe askan wi la ca mandat bu njëkk mu mel ni daal nekkatul maki ba woon la Abdoul Mbaye di laajte moom la askan wa yeewoo ca Rufisque di laajte ndax Macky ma ñu xamoon fal ko ak seen cinquante 54 pour cent ya Macky moomu moo nekkaat maki mi ñu xam ba léegi ki nga xam ne mooy Pierre François Godié moo yëkkati yooyu kàddew daal di nag euh, wax ci kàddu askanu Rufisque te coono ya ñuy yewwu ak jafe-jafe ya ñu nekk ma nga ñuy xamal ne kii di Macky Sall bu fekkee waa Rufisque dañ koo tooñ fas yéene nañoo taxaw nag doxe Rufisque ba Ndakaaru jàkkaarloog moom sukkuraam jéggalu ko ngir mu dal di leen di taxaw dimbali leen waaye itam gëstu leen ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la waa Rufisque nekkee ñu wéy ba tey wax ci wàllum njàng meek njàngale mi tey nag euh, ci altine ji yemook fukki fan ak ñeent ci weeru septembre li nga xam ne moo di examen yi BFEM yi élèves yaa nga ca biir classe ya di jëflanteeg yooyee les épreuves mu mel ni daal ministre d'agriculture et d'équipement ca Kolda yëkkati fa lu tollook ñaari million dimbale ko ndaw ya nga xam ne ñoom ñooy def examen ngir ñu xool ndaka lañ leen di jàppale ngir duñu def examen di wàcc di dem seeni kër ngir lekki dellu siwaat Euh, ñu defal leen cantine scolaire ci yooyu la école ngir ñu mën a stable waaye itam def li nga xam ne moom moo di épreuve yi ci anam wu légal ba yi ñu woy wax ci wàllum njàng me njàngale mi ak coordination des étudiants euh, de l'université Gaston Berger ba ci Saint-Louis ak décision yi ñu jëloon ngir doxe Saint-Louis ba Ndakaaru jàkkaarloo ak ministre de l'éducation amal ak moom waxtaan wu yaatu waaye itam xool ci yan condition la ñuy jàngee ak examen yi ñuy dëgmal fas yéene ko woon amal mu mel ni entente am na ci seen biir ginnaaw bu ñu amalee waxtaan wu yaatu ak ki nga xam ne mooy directeur du centre régional des œuvres universitaires euh, naka noonu nag ci la ñu jëlee décision wàcce lenga ya fa seeni waata dellu ci amphithéâtre yi ngir continuer li nga xam ne moom moo di seeni cours waaye itam xool euh, yan décision la ñuy euh, xaar ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa CROUS ngir ñu mën a wéyal njàng mi ci anam bu légal ñu wéyal ba tey wax ci le général de Bamba Serigne Modou Kara Mbacké ak dogal ba mu daal di dogal ci parti politique am bii di parti soxna soxnaam say wuyoo ci turu Soxna Ndiaye Sylla moom la daal di nommé euh, coordonnatrice su boobu les yi ñuy laajte nag askan wi di laajte jamono ji ak li nga xam ne moom lañ dëgmal di ay élection Serigne Modou Kara daal di yëkkati soxnaam soosu le def ko coordonnatrice lan lay waajal waaye itam mu mel ni mu ngi ci ruqam di liggéey moom Serigne Modou Kara di def lu am solo ci mi fàttewul ña ca diaspora bi moom Serigne du Kara mi ngi ñuy xamal ne nañ ko bàyyee xel ndax mu ngi wàcc loo xam ne bis buñ ñëwee askan wi dinañu ci euh, jariñu langue politique ge campagne électorale bi ñu nekkee te jàppaguñu datu élection yi mu mel ni daal kenn ku nekk yaa nga ca la la neex bu kii jaaree gos kii jaar droite kii nga xam ne moom moo di njiitul mouvement gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany moom manqué wu ko benn yoon ginnaaw bu mu demee woon ca banlieue ba daal di diisoog ñoom waxtaan ak ñoom bokkak ñoom naqar wa ñuy yeewoo waaye itam yëkkati alalam ci fi doolem toll dimbalee leen ko bokk na ci ñaar fukki moto pompe ak juróomi junne ak juróom-ñetti téeméeri litre essence yoo xam ne moom la ñuy def ci yooyu le moto pompe ngir ŋàcc ndox ma. juróomi junni ak juróomi litre yi eau ngir cet geeg cet cetal gi waaye itam fukki millions yoo xam ne ci ay kopparam la ngir dimbale ko askan wa nekk ca commune bu Pikine banlieue ba ngir ñu daal di nag xool ndaka lañuy ñuy def nu mu gën a gaawee saafara ko ci wàllum mbënd mi. Bougane daan yi yemul foofu ginnaaw visitam boobu moo def waaye itam waxtaan nag askan wa xamal leen li nga xam ne moom moo waral jafe-jafe mbënn mi ci réew mi bokk na ci ka mu duut baaraamu tuuma di njiitu réew mi Macky Sall Bougane Gueye ngay wax ne askan wi nañu bàyyi di euh, def li nga xam ne moom moo di. Euh, politique bi ñuy politique askan wi ci bu ñu nekkee ci ay jafe-jafe waaye ki nga xam ne moo di njiitu réew mi Macky Sall du fi andi benn rapport boo xam ne da koy joxe ci li nga xam ne moo di plan décennal wàcc ma daan naa la wóorul ko daan da ngay féete kaw mu mel ni vice président Jamra bi ak xeex ba mu doon xeex ci série sénégalaise yi daw ci télé yi daanaka daal fi mu ne nii euh, mujjee na ci am ndam ginnaaw bu mu jébbalee woon a plainte CNRA ak liggéey bu am solo ban ci amal ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllum cinématographie daal dinañ ci wàcc ay dogal yu bees daal di nag xamle ñi nga xam ne. ñooy def ay série te amuñu ci benn autorisation képp ku ci tourné te ab série te amoo autorisation yoon dina dal ci sa kaw ak loi yi bees yanu ca dogal bokk na ci euh, képp koo xam ne yaa ngi tourné te amoo lii di autorisation bu dee long métrage euh, daan yey tegu ci sa kaw dina doon trois ba dix millions bu dee court métrage un ba cinq millions ki xamle yooyu le kàddu nag mooy directeur de la cinématographie de Hugues et Diaz ca Zac Mbao xeex ba bafa amoon ci euh, diggante ñaari nit ca baara ba ñuy woowee Batasco mu mel ni xeex boobu lee sarax ba juróom-ñaari mètre perkal ndax am na ku ca mujjee ñàkk ba kanam di ab xale bu góor bu dëkkoon ca kër Mbay Fall xeex boobu nag mi ngi amoon vers euh, sept heures du matin ndaka noonu la ñaar ña jàmmarloo ba kenn ka daal di mujjee fàtt keneen ka ca des ñu daal di alerter sapeur pompier ak gendarmerie ñu ñëw yóbbu ko nga xam ne moom moo ñàkk ba waaye ka def jëf jooju loolee dafa daal di yoon daal di ci ubbi ab enquête waaye itam di xool ndaka lay def ba daal di koy teg loxo ca Mbuur ak laskan way naqarlu mu di professeur EPS bi nga xam ne moom moo di moo violé lii di loi bi ginnaaw bu ñu ko jàppee ci lii ni mbirum pratique homosexuelle mu mel ni daal jëf ju ñaaw joojee mu doon def daaw ko def ci ñenn ñu dul mineur yi li ko dalee juróom ñetti at ba fukki at ak ñeent ñoom lay daal def lii di abus de confiance fexe ba waaye fa muy mujjeeg ñoom mooy daal di leen di sakku eh, ci anam wu doy waar ndax bu leen di sakku day mel ne xale yooyu dañ ciy jëlee ay gaañu gaañu yoon teg na ko loxo nag ginnaaw bu kenn ci parent xale yooyu le déposé à plainte police daldi ci yóbbi ab enquête ndaka noonu ci lañ ko teg loxo la ko yoon di toppee nag du lenn lu dul viol acte contre nature et détournement de mineur alxayri jip na ci animatrice su Sen TV bi di Alima Ndione mu mel ni daal jamono ji nekkatul Alima Ndione waaye madame mbay tax na ña nga xam ne ñoom ñooy liggéey ca Sen TV def mobilisation bu am doole dal di nag ànd ak nga xam ne moom mooy Alima Ndione seen diggante fësal ko dëggal ko waaye itam wane cofeel ga ñu am ba tax na ña nga cay gis ñenn ci ñi nga xam ne ay borom mi daraja lañ ca boobule mariage ñu ngi koy ñaanal Alima Ndione heureux ménage monsieur et madame mu toftal gisee soxna activiste bi di Ndeye Babel Sow mu mel ni daal euh, doomu dem ci yàlla Sidi Lamine Niass di Cheikh ñas mu cee daa xam ne ndoole ci ay dóor la bon daal dinay jël nag lii di ab ñaareel ñuy laajte kan la jël ñaareel ba léegi xamaguñu kan la waaye daal euh, sur les échos euh, Cheikh Niass jël na ab ñaareel ñu koy souhaité moom itam heureux ménage ca Kaolack ab immeuble troisième étage moo fa dal di xawwe ku jóoru ci suuf étage boobu leen ña ñuy xamal ne benn kilifa diine moo ko moom mbir ma nga amee ci quartier Ridwan ba ca Kaolack waaye nag heureusement ba kenn amu ci gaañu gaañu kenn ñàkku ci bakkanam ndax doonul woon bâtiment boo xam ne ay nit dañ caa dëkkan waaye dañu ko doon liggéey te noppeegul ñu dem ca Tiwaawoon ak tey di le 14 septembre bis bi nga xam ne duñ ko mës fàtte bokk na ci bis yi nga xam ne saa su ñëwee dañ koy féetal màggal ko ndax fàttaliku ki nga xam ne moo di maam Abdou Aziz Sy Dabakh ñaar fukki at ak ñett bi mu laq ak léegi tax na waa Tiwaawoon ñu wàcc ay kaamil tey waaye itam ñaan ci yàlla mu dal di wàcc ay xéwal ci biir réew mi di Sénégal. le 14 septembre doonul bis bi ñuy fàttaliku maam Abdou Aziz Sy Dabakh rek waaye homme politique bi nga xam ne moom itam jóge na fi doonoon koo xam ne doon na jariñ Sénégal waaye itam apporter na leen loo xamante ne ni ba tey ñu ngi koy fàttaliku mu di Djibo Leyti Ka ñuy ñaan ci yàlla mu daal di koy xaar ci àjjana ya gën a kawe dañ koy jeexale ak point Covid 19 bi nga xam ne moom la ñu ministère de la santé et de l'action sociale xamal tey ci euh, altine ji yem ak fukki fan ak ñeent ci weeru septembre benn nit ñàkkul bakkanam nit ñaa ngay weer di nemmeeku waaye terewul ba tey ñi nga xam ne ñoom la fi ñoom ñooy sàmm ak yaramu doomu aadama yi di sàkku ci askan wi ngir ñu dëppook li nga xam ne moom la ñu digle bàyyi tere yi ngir ñu mën a mucc muccal suñu njaboot muccal suñu askan mbokk yi xaritu ñu doon taxirlu ci suñu gaal 24 lii lañ leen indiloon ci ay xibaar di leen jaajëfal tey ñaan ngeen wéyal suñuy programme di leen ñanal jàmm te leen di wax ba ëllëg incha allah. sunugal24 point net